teete ci ay rakkam ba tànn sëriñ du Xari mii teg lépp ci loxoom moom itam mu nangu ko ci pas-pas nangu ko ci yar nangu ko ci jëfe ndigal yàlla na ko yàlla sàmm àggaleel ko yéeneem ci barke sëriñ Touba. ñoo ngi nuyu soxna maam Bousso Mbacke bintu Cheikh mu Moustapha Fadilou ak ay rakkam di nuyu sëriñ Abdoul Karim Mbacke moom sëriñ Bachirou mi nga xam ne moo jiite daaira setti sëriñ Moustapha Fadilou yëpp. ñoo ngi leen di siyaar bu baax di leen ñaanal di rafet rafetlu seenu doxin ak seenu ànd te lépp bëgg liggéeyal seen maam tax yàlla na leen yàlla defal ndam noo ngi nuyu itam seen partenaire bu mag bi yàgg ànd ak ñoom ci lépp muy sunu way jur soxna Awa Gajaga Baye Fallou Serigne Moustapha Fadilou di nuyu soppee Serigne Falli Serigne soppee Serigne Moustapha Fadilou yëpp ak bokki taalibe yi ak bokki dëkkandoo yi di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu defal nu tawfiix ci barkeb sëriñ bi sëñ Saliou. barakallahu jërëjëf mbokk yi nuy seetaan yaakaar naa ne dégg leen sunu gan bu tedd googu nga xam ne nuyoo bu mat boobu nga xam ne matale na te jëmale ko ci njabootuk sëriñ Touba ak njabootuk sëriñ Moustapha Fallilou ngir siyaare leen ak ndokkeel leen ci bis bu tedd bu màgg bi nga xam ne sëriñ Mour dana fàttali nga ca luñ ca war a mën a jariñoo nga ca waaye ñoom ñu tànn bis bi nga xam ne kat sëriñ Fallou la da ko gërëm ci jumaa ji ñu di ko màggal loolu nag bala noo dikk ci waxtaan woowu ñëw ci loolu dana ñëw kan mooy Cheikh Moustapha Fallilou loolu dañuy delloowaat kàddu gi Baye Omar kan Baye Omar bu ñu la laajee jëmm ju tedd jooju ci lu nu am ci waxtu lan moo xaj ci dundam loolu ci mën a fàttaliku loo xamante ni danañ ko mën a gànnaayoo danañ ko mën a dégg ci sunuy nopp mu jaar ci sunuy xol waaye suñu noppee sunuy cër yàlla yéwénal ko ba nu mën caaro yi Serigne Modou kooku la ñuy laaj mooy kan jërëjëf sëriñ Saalihu danaa leeral bu baax mbégte mi am ci jataay bi ak li ko sabab bala ñuy dugg ci waxtaan wi jataay bi day jataay boo xam ne jamono da ko laaj yu bari aju ci ndax ab jataay